mbokki dinde yi soppay Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xaban ñi jël seeni bakkan seeni am-am seeni turi seeni santi jaay ko kenn muy Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xaban ñu leen di nuyu jiital nuyoo bi surafaul jalsa surafaul jalsa ñu jiital ci as cheikh Mouhamadinil Muntaqa xalifatul aam li taifatil muridiya di ñaan ayyadahu llahu wa nasara yan na yàlla dëgëral ko te kattanal ko waaye ñëw ba agsi ci kenn ci jëwriñam ci yoon wi toogal ko ci jataayu maamam ju sell ju baax ji muy a cheikh ibrahima xujja ibnu sëriñ Modou Xaban di ñaan moom tamit atara allahu baqaana fiina atara allahu baqaahu fiina yal na saa borom yokk aw fanam nan la ne wàccee ba a cheikh ahmadul xadim ñu gën koo miim sëriñ cheikh bintu sunu borom moom tamit di jantub samsu saam wa samsu din day suma sa tuuba jantub saam bi dekkilaat saam di ko dundal ba yaa saaimal barqil oda farxal ila saami yow miy séentu jantum jub takkal gawar wuti saam cheikh ah ahmadul qadim katibun nazaqun lil qadimi li anna cheikhana abdal ahad amarahu bi nisqil kitaabi bindkat bu mag bi bi cheikh abdul ahad daan bindloo fulku yi ak lenn ci dawaa wiinul qasaid yi bi xattin jamilin waaye te laysa raqiqin mbindin wu rafet waaye dawul sew nag sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ñaan saa borom yokk aw saw fan di ñaan fekke woon nan déwén yàlla nañ fekke fekke woon nan ren fekke nan ren te fekke woon daaw yàlla nañ fekke waat déwén di dem rek ci seen loxo ndijoor ki nga xamante ni darñeel tàggatoo gi nit di tàggatoo ak àdduna ka ca dinde di doyloo di fa yabal mooy sëriñ Koso Mbakke néew yi war a jébbal seen borom te aju ci dinde li ci ëpp kenn doyloo xam-xamam doyloo ragal yàllaam doyloo ak sellam ci askan ñaari ween yépp askanu Mbakke gi ci Cheikh Ahmadu weneen askan wa ca def di Mbakke tamit ñaar yëpp ñu doyloo ko ca moom ba tax ku wuy ji boroomam moo koy taxawee bi taqwaahu wa bi zudihi wa bi saqaihi wa bi karamihi taxtaaru ci ragal yàllam ci dëddu àddunaam ci tedd ngam ci lañ ko tànne loolu tànnuñu ko rek li nasabin faqat li nasabin wali xuluqi dañ koo tànn ci askan wi waaye préparation jikko ji sëriñ kaso ñuy ñaan sa saa borom yal na la fi gën a yàggal gën la fee kattanal ziyaar nan mbooleem suyux yi kiram yëpp aju ci biir askan wi rek bu ma tuddee sànq soosu rek danan ma yeggaleel nuyu bi ci ñi des ñu leen di ziyaar rek kon min baaxoo di wax zur man tuhibbu wa in bi ka daaru wa xaala min dunihi sahlu wa awaaru la yamna annaka bu'dun min ziyaratihi lu xew innal muhibba rek liman yahwaahu zawaaru nit ki boo ko bëggee fu mu nekk jànj du la tee yegg joor du la tee yegg mbàkke dañ leen a bëgg rek safoo leen rek moo tax yoon lum metti metti ñu toggoo tamuñ naaj lum tàng-tàng ñu toggoo tamuñ yaram lum wéri di ñu toggoo tamuñ ngir rek innal muhibba liman yahwaahu zawaalu sama mbokki taalibe yi ñu ngi leen di dalal ci xorom bi ci boqaa bi bokk ci biqaa yi boqaa tarbawiya bi boqaa taskiya bi boqaa ngi leen ci dalal ci yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ñu naan leen ahlan wa bila adadi mbokk yi laaj na saqaafa bi nga xamante mooy commission culturelle bi nga xamante ni ñooy saytu organisation euh, ziar bi ñoo ñu tànnoon sant ñu ab liggéey ci feddali ndigalu kilifa gi muy Cheikh Ibrahima ca Poroxaan ndigal la gëm ñu digaloon muy lan ahamiyatul wafa fil islam importance su matal kóllëre ci l'islam ak Cheikh Ahmadou Ndumbe na mu waaye loolu bu ñu dee waxtaan importance su matal kóllëre dañuy jël si Ahmadou Ndoumbé mu nekk référence ci ñun wàccaat ci jikkoom ci nan la taxee woon ci kóllëre ndax ëtt bii ëttama donga yi dongaam lan soppe yi soppeem lan kon buñ leen dee jàngal nan leen jàngal seen soppe ba mu meloon réussite doomu aadama di su ko yaakaar ci doomu aadama bu mën a doon bu fekkee ne jikkoom rafetut jikko ju rafet gi nit kii defaru ca lay jaaree moom ba defaru ndax bindikat ba dani salaahu amrika lil axlaaqi marjihuhu fa qawi min nafsa bil aqlaami tastaqimi bil axlaaqi tastaqimi liy defar sa mbir biir ak biti mooy nga defar sa jikko saa yu jikkoo defaru rek biir ak biti jàkk bu bit jikko defaruwul nag kon defaru gi du yomb fa bi baqaai l umami wa sirr wujudihi tarjiu ila al axlaaqi al xasana société bu bëgg a sax te développé day jéem a defar jikkoy waa société kon nag mbokk yi ci loolu lan gisoon ku bàqi di yonente bi alayhi salaatu wassalaam boroomam yónni woon ko waaye li taxoon mu yónni ko mooy matal jikko innama bu'ithtu li utammima makarimal axlaaq waaye mbokk yi gis nañ Serigne tubaab di wax ci nuuru darini askanta fil makarimi l axlaqa yaa man mahal xurbata wal imlaqa kon mbokk yi waxala haza al ci fondement bu mel nii nag ci la ñuy tënke ahamiyatul wafa fi l importance su matal kóllëre ci l'islam danañ ko bëgg nag traité waaye ngeen jéggal ñu lu yaatu rek ñuy boros lépp lu bari ndax jataay bi ni tëdde nañu gis ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa nekkoon koo xamante ni ku mënoon a matal kóllëre la moom mi yàlla teg sunu kanam muy roytiif bu mag ba ku mënoon a matal kóllëre la te matal ko ci anam yu baree bare bokk na ci matal kóllëre keroog bin ubbee fatxu makka ba jot ci mbooleem lu lislaam moomoon te yéefari màkka yi yilifoon ko bin ko nangoo ci seeni loxo bokk na lam sàmme ci kóllëre nan delloo caabi kaaba gi ña ko yoroon dontu du ni julli inna allaha ya'murukum an tuwaddu lamaanaati ila ahliha wa ida xakamtum an taxkumu bil adl ngir lan sàmm kóllëre gu yàgg gi fi nekkoon mbokk yi ci la xol yi di miinante kóllëre ci la jokkaloo bi dëgëre kóllëre ci la diine ji rafete kóllëre ci la adduna bi avancé kóllëre ci lan mën a amee ngërëmal borom bi subhanahu wa taala moo taxoon borom bi ni wa awfu bil ahd inna al ahda kaana mas'ula maa ngi leen dénk ngeen matal kóllëre ndax kóllëre dama leen koy laaj ëllëg kóllëre nag jikko la ci jikkoy suñ borom yi wala melokaan la ci melokaan suñ borom yi ndax yalla moo ngi wax naan inna allaha la yuxlifu l miaad yàlla du fausé rendez-vous day matal kóllëre waaye du wor kenn mbokk yi bokk na ci yàlla yum tagge ay yonenteem bokk na ci yonent yàlla ibrahim dafa wax ni ibrahim matalkatu kóllëre la wa ibrahima allazi waffa ibrahima matal kóllëre la kuy matal kóllëre la bokk na lim tàgge yonent yàlla ismail nee na waskur fi lkitaabi ismail innahu kaana saadiqa alwaad wa kaana rasulan nabiyya kon mbokk yi kóllëre moo tax yàlla dig ay nit yi ko lamboo te sàmm ko ba dajeeg moom mu garantir leen ni leen yéen si mooy seen kër kon kóllëre ki koy sàmm nam ware te ko tëw koo ba na ko leer ni ajjanay firdawsi mooy nekk këram walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raun kon ba léegi ñiy sàmm amaanaat yi waaye confiance yi ñi koy sàmm confiance société bi waaye confiance su mbokk yi confiance su taalibe yi confiance su sëriñ si lépp ñu koy sàmm waaye di boole nag di sàmmaale kóllëre ñooñu nag ulaikumul waarithun alladina yarisuna alfirdawsa hum fiha xaalidun mbokk yi bokk na ci ñi yàlla wane ni ñooñu ñoo di jàmbar pire ñi am xel pire yàlla nee na xel pire boo ko dee xool ki ko am mooy sàmmkatu kóllëre yi innama yatadakkaru ulul albab allazina yuufuuna bi ahdillah wala yanquduuna almithaq mbokk yi noonu nga gis ni kon yenent bi alayhi salaatu wassalaam nekk na insaanun wafi ku mënoon a matal kóllëre matal kóllëre yonent bi yaatu na lool danañ ci jël benn digganteem ak sayyidatuna Khadija radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi bi Khadija wàccee liggéey day toog fu mu di nemmeeku way am lante Khadija ndey dikke yim dëkkaloon ci biir màkkatal mukarrama di rey ay gàtt di ko dagg di leen ko yónnee ngir wane rek sàmme ko kóllëre xadija ak ñoom waaye mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ gise ci taarix sàmm kóllëreem toog na ca madinatul munawwara am yenn mu arriqu ni ni makkatal mukarrama ñu tàgge ko ku ñuy wax buur bu ñuy wax najaasi ni ko najaasi génn na àdduna fekk booba moo nga makka am ñu ni moo nga madina ci njekkat taraanga gum ko lebaloon ci bi lislaam demee ba tumuranke fu mu bi mu yablee fu nu làqoo moo fatoon jullit ñi moom buurum najaasi keroog bi mu jotee xibaar ni najaasi wàcc na liggéey dañuy nan ko defal salaatul ghaib mooy nan ko jullee te gisuñu ko nga xam ca Makka la taxaw di jillee néew boo xamante ni diggante bi ay distance yu sori la donte néew ba nekkul ci kanamam mu def salaatul ghaib ñi jàng fiq xam nañ ne salaatul ghaib jaisun fi masailil fiqhiyya dagan na jiite néew boo gisut dagan na keroog ba koy def di ko jàngale ci lislaam keroog kóllëree taxoon gu ko najaas lebaloon moom la doon sàmmat digganteem ba tax mu def salaat te xam ngeen ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam kum jullee doolak waaye bi muy jullee najaas yi benn intérêt rek la am intérêt rek la am mooy najaas yi lebal na ko njaboot gu tumuran naroon a tumuranke mu fat leen waaye bëtëm musta tegu ci jëmmi najaas yi fatu njaboot rek gim ko fatal njaboot moo tax mu fay ko loola mbokk yi yonent bi alayhi salaatu keroog bi mu defee fatxu makka te Sëriñ Tuubaa dañu ko jàngal ci fataxa fatxan lam yura qattu wa xawdu lan keroog bi mu defee fatxu màkka googee bi mu ñëwee ba ci mbokkam sàmm na kóllëre yar gën ko yar ci seen kanam ak aqi njuréel gën ko meññi ba tax na bi mu ñëwee dañu leen izhabu fa antumu tulaqa dem leen yi ñëpp jéggal naa leen bis tey mbokk yi noonu la ñëwee nag ci sahabatu ridwanullahi alayhim mbokk yi yaasir ak Ammar ibnu Yaasir radiyallahu anhuma Ammar dafa kóllëranteeg yonent bi gëm boroomam kóllëranteeg yonent bi jàpp ci lislaam ñu ni ko da nga deltu ginnaaw ci lislaam gi war a ñu faat sa yaay ci sa kanam mu ni donte bakkanu yaayam day dem du tax mu fecc kóllëre ñu jël yaayam tëral ko ci kanamam mu toll ci jigéen gu toll ci matu ci waxtu woowee la doon toll ci weer waaye ñu jël ab xeej samp ko ca biiru ndey ja muy jàkkaarlu moom ñu naan ko deltul ginnaaw wala ñu bës mu sar mu ne li ma kóllërante dama ko fecc ñu jam xeej ba mu sar ba bënd ca ginnaaw ga Ammar ibnu Yaasir Yaasir mi bàyyam taxaw ci kanamam ñu yeew ko yeew tànk yi yeew loxo yi jël jaas yi teg ca put ga ni ko feccil kóllëre deltu ginnaaw wala sa baay fekk sa yaay mu ne fecc kóllëre du ma dara du ma ko jalal ci àdduna baat ba tàq baatu baayam tàqali ko ak bopp ba amar ibnu yasir radiyallahu anhu yendu ci naaj naaj doyatut ña ko yoroon ñu taal ab sibb di ko ci sëndal ba deret ji doon sotti ci ginnaaw moo fay taal ba te texul mu fecc kóllëre mbokk yi yooyu ridwanullahi alayhim noonu lan amee woon pas-pas noonu lan amee woon dëgër noonu lan jàppe woon kóllëre yenent bi alayhi salaatu wasalaam xaramu ata wax na classement bi muy classé armée bi wax na juróom benn nit ni leen diw yow bun la rayee na diw jël drapeau bi ci classement bi ñuy classé armée bi pour ñu war a dem ci terrain guerre bi généraux bi nga xam mooy général bu mag bi mooy taxaw di wax capitaine yi jiite armée bi ni la diw dañ lay faat tey waaye buñ la faatee yow diw na nga jël drapeau bi bu mu laal suuf diw buñ la faatee na nga jël drapeau bi yow diw bu mu laal suuf di ko lim ba muy juróom benn juróom benn yëpp mu leer ni leen tey la ñuy faatu te kenn nag ci ñoom rafut kenn nag ci ñoom deltuwut ginnaaw kenn ku ne ci ñoom keroog nga gën a takk laxasaay wane njàmbaar ga nga daan wane ci xare ba sa bakkan ca moo tax ñu ni boo dee sàmm kóllëre melal ni jaafar ibnu sadiq radiallahu anhu jaafar yonente bi dañu ko drapeau l'islam bu muy laal suuf mukk ci àdduna jaafar dafay yor drapeau bi ñu jam ñu dagg loxo ndijoor bi mu jël drapeau bi jox ko loxo càmmoñ ñu coraat loxo càmmoñ mu jël drapeau bi ŋànk ko ngir lan kóllëre gam waxoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu drapeau bi laal suuf mu ne du fecc kóllëre mukk dara buy laal suuf muy fecc ko la diggante mag yonent bi jël drapeau bi bank ko ci poqutaanam ñu cor loxo bi ci poqutaan ba mu jël drapeau bi ŋànk ko teg ko ci lupp yi cër yi lañuy daggat benn ba salmaanul farisi yi ñëw jël drapeau bi taawu ko waaye drapeau bi laalul suuf ak cër yi nii jorete benn par benn Jaafar nu Sadiq radiyallahu anhu mbokk yi ñooñu ñooy saxaaba yi ñooñu la ñu Serigne Touba waxoon nan nekk seen bay ci diine ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ashaabi kan nujuumi bi ayyihi muqtadaytu muhtadaytum ñooñee la Serigne Touba doon wax asahba rasulillah inni qadimuhu muhibban lakum fi llahi wallahu yakla'u ñooñu la xaadimul Moustapha doon lim benn par benn ala saaba zawil ijaaba yawmal kaaba rida sanaa'i ñooñu lay sëriñ bi doon wax ni'ma rijaalu lahum majaalu niilu wa naalu waqtal anaa'i mbokk yi ñoo ñooy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñoom la sëriñ Tuubaa di mel ni gaynde sibi bu nekkee ci toolu xare usudun ala al aada masabihu fi duja wa kullun sijaun rah zizil kufri yajisaw benn istiaara ben istiaara balaaxa gën ta rafet istiaara xaadimal Moustapha boobee ci ñi jàng balaaxa mbokk yi noonu la ñuy ñëwee ci al cheikhu Ahmadu Bamba radiallahu anhu Serigne Touba ci matal kóllëre Serigne Touba boo ñëwee ci dundam gépp kóllëre la dundam gépp matal kóllëre la benn Serigne bi dafa gane jamono wax na jaaratullahi Mariama Bousso moo ko wax nee na bi mu rek dani fasante na na maag yàlla kóllëre diineem ji maa koy yeesalaat ba dara du ci raaf keroog bi soxna jaara di fekk si ndakaaru la ne ko la nga fasante woon a kóllëre sa borom laa fàttali si waat tey yaa ni ko diine ji yaa koy taxawalaat ba dara du ci raaf hadamtu bi haqin fa dahaq wali ilahi kahta zayqihi dahaq dinaa mabbu ceddo samp fi dëgg hadamtu baatilan bi haqin fadhaq dinaa màbb ceddo samt fi dëkk jalatex waxoon ni maa ngi leen di yëgal ni li sama yéene mooy wa sunnatahu waaye insaa rabbi ubayinu xoolal mafulum bihi bi mu jiital ngir lam al ixtisaasa al ixtisaasa wa sunnatahu insaa rabbi ubayinu jazaakumullah wa sunnatahu intaa rabbi ubayyin waxul ubayyinu sunnatahu dani wa sunnatahu lu tax mu jiital sunnatahu ñi jàng balaaxa dañuy wax ni fun jiital mafhulun bihi al ixtisaasa al ixtisaasul umuuri danoo jagleel mbir yëpp ci mbir mi moo tax wallaha rabbi asalu alqabula wal amna wa safaa wa tabjila saamu ne wa asalullaha waaye dani wallaha rabbi moom ngay jàng ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saa nga ni na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka waaye nag loola ixtisaasa la mbokk yi xaadimal Mustafa xaadimal Mustafa ci matal kóllëre xamee sut ku mel ni moom ci dundam ci matal kóllëre musta fecc wóllëre mukk ba Paul Marty mi nga xamante ni noonu la te wal xaqu ma saidat bihi l aadaau mbokk yi borom xam-xam yi nee nañ dëgg piir mooy li la sa noon seedee wal xaq maa saidat bihi l aadaau dëgg piir mooy li noon seedee Paul Marty nee na lam ara fi xayaati wafiyan lil aad misla xaadimil Mustafa al islaamu fi Sénégal nee na gisuma sama dund gi matal kotu kóllëre bu dab xaadim rasul mhm. nee na loolu musuma koo gis sama dund Serigne Touba bokk na ci kóllëre diggante moog yëlli sëy xeex ba mu ko xeexaloon ca maa yomba yenn xeex ba jant yi waaj xeex bu rëy boobee ngir ay bantam yu sampoon ñu simpil ko yëlli futteeku di ko xeexle di ko xeex di ko xeex ba sëriñ bi ni matu ko yàlla faj na ko keroog la taalif raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba ca lay bind la huktub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba bi mu yegsee foofu la woo yëlli ni ko saa borom nee na bant ay jumaa lay doon ëllëg ak i soorol yu taxaw xeex bi jeex na matatu ko yëlli sëy xeex la woon ko ca maayomba ngiri bant yuñ sempi bi jumaay njaareem yeggee daa ñëw siyaar si sëriñ bi njaareem bi mu ñëwee nuyu ko sëriñ Touba boole ko ak Cheikh Mouhamadul Amin Diop ak Dagani ni ko nee ko mu seetal ma bant ya bant ya ca maa yomba na ko xool ni ma ko yàlla fayee yëlli dem ànd ak Cheikh Mouhamadul Amin Diop ñu wër jumaay njaareem ji ma mat bi mu ñëwee bi ni ko kayfa haada wa ma kunta kayfa haata wa ma kunta raayta ayuha almutaxaatil anni ayuha almuqaatil anni kayfa haata naka nga gise jumaa ji ak li taxoon ngay xeex ayuha almuta muqaatil anni yow mi doon xeex ngir man yilli ni ko subhaanallah laa munaasiba bay laa munaasabata baynahuma ñoom ñaar de amuñu ak dend ay bant ak jumaa ji la yàlla fay sëriñ bi daan ni ko hada maana xawli nafa li gayri llahu ma yomba ma saa qalbi wa alal jamba lii mooy maanaa jumaa ji mooy ma li ma doon wax ni yàlla dàqal na ma la ma naqari woon ca maa yomba li ma fa naqari woon ca bant yan seen bi yëpp yàlla dindi na ko bam set waaye wa alal jamba yëkkati na sooro lu njëriñ kon li tax muy wan yëlli si jumaay njëriñ ji mooy kóllëre gam ko lebaloon ci di ko xeexle bokk na ci matal kóllëre damaanul janna liman akramatahu bi i wa ihi fi ayaamil matari sadiq garante gum garantil ajjana ci ku ko teraloon ca gabon ndaw su ko teraloon ca gabon gis muy taw téere yi nara mu génn néegam fanaan ca waañ wa jébbal sëriñ tubaa néegam ngir téereyi yi sëriñ bi bañ a tooy kooku la sëriñ tubaa waxoon ni udminu lahal janna garantil naa ko ajjana yadxuluha tadxuluha bi gayri xisaab dana ca dugg te kenn du ko réglé lan la ko lan la ko ndaw sa defal kóllëre la ko lebal ngir téere ya bañ a tooy Sëriñ Tuubaa kóllërante woon nag soxna Fatima Isa Jéy soxna Fatima Isa Jóob way juru maam Ceerno Ibra Faati radiyallahu anhuma soxna Fatima Isa Jóob da koo waxoon damaa ragal faatu waaye boo ma dugalee ci bàmmeel damaa ragal bàmmeel waaye boo ma ci dugalee sama xel dal Serigne nag lim doon ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bari na lim nduróog moom bari na waaye nduróo bii nag yéeme na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn la mës dugal ci biir xabru muy jigéen kenn ku jigéen mooy soxna Fatimatu bintu Asad wayjuru Sidna Alin karramallahu wajha di tànta ci moom Serigne Touba benn jigéen la mos dugal ci bàmmeel soxna Fatimatu Isa Diop way jur maam Cerno Ibra Faati di tànta ci moom ci aw ji hut tasaabo anam yim ko nduróo toddoon na ko sëriñ bi bim jugee ci tukki bi jaar yim doon jaar ci kajoor yëpp ñam doon jaar ñaxalëg kësën sirélóog ca sànna yépp ñam ko lërante woon lu njëkk dem ga lay seeti di saafuwanteeg ñoom mbokk yi dem na ba kóllëre ak sëriñ kun daawul siyaare waaye seede gum seede nguuram seede gum seede ni sëriñ tubaa liñ koy tuuma nekkul ci moom jëlul nguuram tay la ko te ko sëriñ tubaa defal karaama defal ko wilaaya ba tax tey ku bokk ci askanam moom rek lañ cay siyaare muy kan buur si mbokk magi murid yi tamit noonu nga gisee ñu nekk ay sàmmkatu kóllëre sëriñ bi kóllëreem diggante soxna Anta Ndiaye digganteem soxna Anta daa jàpp ci loxob sëriñ Aafiya Mbàkke ak loxob maam Cheikh Anta borom gaawaan ñëw ba ci sëriñ Tuubaa ni ko ah, sa baay di dénk dégg naa mu lay dénk boppam man tamit ma dénk la saa bopp ak sama njaboot looloo tax na bim tolloo ci daaru salaam ñu koy sanc sanc ba dem ba beneen sanc taxaw mu sàmmee ko kóllëre gi may ko maam Cheikh Anta borom gaawaan waaye tamit def yaa ma neexam ci maam Cheikh Anta jumaa njaareem ñu ubbi ko mu jël sëriñ Aafiya mbakke def ko muy imaamu jumaa ja ngir lan sàmmee ko wëllëre wayjur wa mbokk yi magi murid yi ak kóllëre Cheikh Ibrahima Faati ndaamal daarul Muxti Cheikh Ibrahima moomee Serigne Touba ne ne daa mën a sàmm kóllëre ba musta tàqalikoog man ci ndaw ak ci mag te gàtt ni Ibrahima Faati musta wuuteeg man ci ndigal mukk ngir sàmm kóllëre dem ba àgg ci ni ko yëgal ni ki bind mbind mii gërëm na la ngërëm lu ak mer dootul toppati ba mukk ana Cheikh Ibrahima Faati Cheikh Ibrahima Faati sàmm kóllëre ak sëriñ bi di sëriñ bi nekkee ci tukki bi da daan jël ay lawraat ak i ay ñaan ak i salaatu ala nabi di ko def suba ngoon ngir yéene ko Serigne Touba nekk ci jàmm te dellu si ngir sàmmee ko kóllëre gi déggoon na ba sàmm gi muy sàmm kóllëre gi moom Cheikh Ibrahima Faati yeggoon na ci njabootug Serigne Touba gi mus naa taw taw bu metti bi mu leen yoree benn ñaari néeg a nekk ci daara ji mooy néeg buñ mën a bi maam na moom ak néegu dong yi ak fan sàq mi nga xamante ne aw xetar moo ci nekk aw xattar moo ci nekk te boo ci fanaanee xasanu xaw laa sonal maam Thierno nu mu def daa jël njabootu xaadimu rasul gi dugal leen ci néeg bi fanaan ca biir sàq ma ngir sàmmee kóllëre wajur wi ak njaboot bi mbokk yi sëriñ Dame Abdourahmane Lo kadalik noonu la sàmmee kóllëre sëriñ bi ci téyel ko jàng ak jàngale ba njabootu sëriñ bi ñi ca war a xam ñëpp xam mbokk yi nag buñ leen toppee ñoom ñëpp mën na yaatu waaye ngeen may ñu tuuti ñu dem ci borom pénc mii di a Seex Ahmadu Ndumbe Xaban mi nga xamante ni moom la ñu jaay sunu bakkan sànq mbokk maa ngi koy wax aha kay ñun kat kër gii mooy sunu kër ci maam yi nu wër yëpp maam ji jur sama ndey ci kër gii la këru maam ji jur sama baay ci kër gii la këru aw ma feneen fu ma jëm aw ma feneen fu ma xam kër gii rek laa mën a am sama dund jaay naa ko kër gi samay xalaat ma jaay ko kër gi sama xalima ma jaay ko kër gi lu ma mën a am lu kër gi am am naa ko lu ma mën a ñàkk bu kër gi amee awma ko soldaaru kër gi laa di mattam fu ma jël na jël ta taxañ maa gi nii di faadilu di doomu sëwru te dib sëti mataar ahmadou cheikh ama cheikh ahmadou ndumbe xaban cheikh ahmadou min dëgmal pàq bii rek doy na ci kóllëreem pàq bii ñu toog di dëndee doy na seede ci kóllëreeg si Ahmadou Ndumbe keroog bi mu yëgee la mu yëg ci yaramam fan la dellusi si ci pàq bii la dellusi si ngir sàmm diggante kóllëre gi ko Serigne tubaa dénkoon ndongo yi mbokk yi ak Cheikh Ahmadou kóllërante na ak Serigne Touba. ba Serigne Touba yónni ko gànnaar ngir mu tuxal fa ay téere waaye bi muy dem gànnaar ci jibëg boppam la paase bi muy dem gànnaar ci pexey boppam la yegge bi mu àggee gànnaar suyux ya fa nekk ak maktabaat yi bibliothèque ya ak sëriñ sa fa nekk ci pexey boppam lay dem këyit ya xalima ya lépp moo koy toppatal boppam téere yi Serigne Touba soxla yëpp mu sotti ko ca loxoom bu sell ba kon seex ahmadul xadim sëriñ seex bintu boo mënee bind ba xalifa sëriñ tubaa jële bind loo sa maam ja nga doon ku sa yunni gànnaar ngay toxali téere ko sotti bu la xa bu sëriñ tubaa bind laa teew ful ko wàcc nga yunni ko gànnaar mu sàmm kóllëre ga ba téere ya xaadimu rasul soxla woon yëpp téere yëpp mat na ci loxob Cheikh Ahmadou Ndumbe bind na ko mbindin bu mat sëkk moom Cheikh Ahmadou na nga xamante ni noonu la ko xaadim rasul soxla woon ba pare tamit toggoo coono yu métti ngir sàmme ko kóllëre gi ko sëriñ bi yebal kii mooy ki jaay bakkanam sëriñ Tuubaa ngir liggéeyal ko waaye kii mooy ki yëkkati junniy dërëm yu dajaloo jox ko sëriñ Tuubaa te booba kenn xamagut sëriñ beeku wooteem bi mu koy jox junni yi sëriñ bi wooteegul yoonu murit kon ki njëkk a joxe junni ki njëkk a joxe addiye ju am solo ci yoonu murit buñ ko dee lim sunu jàmbaar jii ñu toog tey ci ëttam di fàttali ko te daje ci moom kookee la moo tax xaadimu rasul lim ñu dig ñun waa Dendey na ci xel dal li ñu sëriñ bi jox du poñatikum àdduna mii ngeen di seen lii avant avant première la rek avant première nag bala taxee nag naagu boo yeggee ca jàngi ya doo xam looy wax lii lépp ñuy gisandi ci taraanga yépp ay avant première la li Serigne Touba di jox Cheikh Ahmadou bu bool yee ubbee ko ñépp xam ni sunu mbër mi moo di mbër ki nu séddoo mat a sédd te kum sédd ëllëg doo fonde te moo yor kudd ga di séddale ci moom la ñuy gisee jàmbaar juy xëcc di dugal àjjana borom bi naan kii ku mu doon ñu naan kii moo di jàmbaari xaadimu rasul kii mooy ki nga xamante ni moo jëloon liggéeyam mooy x xadim liggéeyam muy dekkil suuf liggéey loo ko yàlla sàmm gim sàmm kóllëre bokk na ci huwa allazi ansaakum min al ard wastaamarakum fiha yàlla dafa sàmmante woon a kóllëre doomu aadama yi na ngeen dundal suuf si génn li ci nekk jox ko jaam yi moom nag fu suuf baaxe tàggat na suuf sa liggéey loo na suuf sa ni ko missionnaire nga kaay joxe sa mission bay bayloo ko lam attan yëkkati jox ko borom jamono muy xaadimul Mustafa mooy waxtu aywa kon day mel ne ñoom ñu junj waxtu yi te li ñu yor ci Cheikh Ahmadou bari na waaye tamit ñu gis ni a Cheikh Ahmadou Ndumbe Xaban nekk na ku matal kóllëre ci bi Serigne Touba nekkee ci géej gi mu taxaw ci wetu maam Thierno Ibra Faati mbooleem lu njaboot guy dundee Cheikh Ahmadou moo ko gaddu te moo koy bay di ko yët di ko yët maam Thierno Ibra Faati tey soññ mbooleem taalibe yi ñu jàppaat seeni pas-pas te yeesalaat seenu taalibe waaye tamit mbokk yi noonu lañ gis ni Cheikh Ndumbe Xaban mii ñu toog ci kepparam Cheikh Mouhamadinil Basir radiyallahu anhuma wax na ni Cheikh Ahmadou moom moo ëppoon ci kii produire ci yoonu murit ci dunduk Serigne fa huwa min akabiril mutasaddirin almuqimin ma al iyal ki ëppoon lu muy produire ci dundu xaadimu rasul ak dundu njaboot gi c'est Ahmadou Ndoumbé la mbokk yi Serigne tubaa moom la doyloo woon ci kóllëranteeg moom lépp lu muy jëfandikoo ci aw ñam liggéeyub Cheikh Ahmadou ak mbayam ak ci loxo boppam la daan doon Serigne Touba lu muy dugal ci aw ñam ci yaramam wu tedd wa ci jëmmam ju sell ja nga xam lu waay lekk lu mel noonu ngay jëf waaye kim wóolu woon ay lekk ak xéewloom aku ñaqam di méngoo ki jëfam kenn la muy as Cheikh Ahmadou Ndoumbe ko am lu tol nii foo jëm feneen ko am lu tol nii koy naw keneen ko am ku lu tol nii foo séentu feneen nanu yamti suñu waa ji te téye ko bu dëgër mbokk yi noonu nga gisee as Cheikh Ahmadou Ndoumbe xaban ci matal kóllëre ci la nisiroon di mottali nisrub xaadimal Moustapha ci Serigne Touba dafa bokk ci yuufuuna bi nasr wa yaqaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira ñi nga xam fu nisr rek seen borom dañ koy matal ci nga gis Serigne Touba nisr gëm nisroon ci roy yonent bi ci goreel jaam roy na ko ci lépp li ko dese ci roy gi mooy goreel jaam bim soxlaa jaam yu mu goreel ana kan moo ñëw taxawul ko loola matalal ko kóllëreem ak yonent bi kan la ak seex ahmadu ndumbe xabban moo takk la xasaay liggéey ba jënd ay jaam indil ko xaadimal Moustapha mu gore leen mbokk yi kii mooy a seex ahmadu ndumbe xabban ci matal kóllëre yóbbu na ko ci da daan bay ba àggal li muy bayal Serigne tubaab du ca ñam te donga bu ca dagg aw gub mboolu ko mu yewwi la ngir sàmmi ko kóllëre diggante ma Xaadimu Rasuul nga xamante ni la jëm te dundu kër ga bokkut ak lam sàmme kóllëre diggante ma xaadimu rasul mbokk yi a Seex Ahmadu yemul ci sàmm kóllëre digganteem ak sëriñ bi waaye bi Seex Ahmadul Xadim wuy jee boroomam Seex Muudu Moustapha toog ci xilaafa gi noonu la xam ni wal Moustapha in sabahat afaaluhu afaalu waalidihi fa layta bi daalim Moustapha ay jëfam ak jëfi waajuram wenn lay doon ca la daal di takkaat njëkk jébbal boppam ak Cheikh Mouhamadinil Moustapha al Karim coow li nag bari na waaye ki mujj laalanteeg jëmmi Serigne Touba bi ñu koy rob ci biir kenn la muy ak Cheikh Ndumbe Xaban moom la Serigne Touba dénkoon mu dugal ko ci biir barabam bu mujj. kooku moom histoire nettali na ci mbind mi wér ci yoonu murit jëmm ji mujjee laal jëmm Serigne Touba mooy as Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabaat